fa tabarakallahu su loolu wéyee ñoo ngi dellu siwaat ci bés bu tedd bu sell bi di leen ziyaara ànd ak di ñaan yàlla mu nangul leen nangul ñu nangul bépp jullit sunu xutba tey jii mi ngi jëm ci fii xaqi llahi wa xuquqi ibad baynahum bi maanaa aq yi nga xam ni ameel nañu ko yàlla subhanahu wa taala ak aq yi nga xam ni dox na diggante jaam ak moroomu jaamam mbokk yu tëdd yi ñoo ngi dénk suñu bopp te di leen dénku ragal yàlla ak buuxante sàkku ngërëmal yàlla ñu xam ni borom bi tabaraka wa taala dañu ko ameel ay àq yoo xam ni dañu war sàmmonte ak moom te bokk na ci àq yooyu mooy ñu jaamu ko na mu gën a rafete bañ ko bokkaale ak kenn wala lenn wala dara lu yàlla bind ñu xam ni it suñu digganteeg jaam yi ñi ñu bokkal diine ak ñi ñu bokkul ak diine am na àq yu dox suñu diggante te dund gi ñu nekk ci kaw suuf mënul nekk dund gu neex dund gu dal ndare bu tey kenn ku ne jox sa moroom àq yemu yelloo digg na ci xadiis yu wér ci bunt boobu lay ñu àndandoo déglu ko te góorgóorlu jaar ci ngir ñu taxe yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ak yi nga xam ni jullit amee na ko yàlla subhanahu wa taala bokk na ci kenn ku ne war nga juróom-ñaari fan yu ne soo ko mënul def bés bu ne par juróom-ñaari fan doog nga sangu sangu set donte da nga mag donte da nga feebar war na ñaar a jege par juróom-ñaari fan bokk ñu raxas sa kanam raxas sa bopp tooyal ci dox boobu àq diggante nit la ak yàlla ndax yàlla dafa set dafa bëgg ku set set ci sa yaram set ci sa yére set ci li la wër set ci sa yaa jaamoo yàlla ba ci mbedd mi ñu wër mbalit bu ca romb yow jullit sa diggante yàlla war nga far war nga sànni feneen fu mu dul lore kenn fu mu dul gaañe kenn gis nga yii la yëpp lislaam moo ko jëkk woot bala ñoo xaar waa mairie ba mbaa réew mi suñi tonni mbalit yi kenn ku ne sa biir kër war nga tonnil sa bopp sa digganteeg yàlla war nga raxas sa néeg sa digganteeg yàlla war nga sàmmonteeg cet mbedd mi sa digganteeg yàlla bii àq suñu diggante la ak yàlla subhanahu wa taala yonente bi ne sallallahu alayhi wa sallam àq yi nga xam ne dox na diggante jaam ak moroomu jaamam ba ca jiitu mooy àqu ñaari way dencante àq bi nga xam ne jabar amee du ko jëkkëram mooy bañ ca xañ boppam su ko soxlaa ci kaw nag amul ngant feebarul lottul ndax it su la yàlla nee si kër su mu la soxlaa donte da nga waroon mbaam mbaa waruwaay war war nga ko mën jox la mu soxla ci kaw bu mën nekk ci kaw bu mën nekk mooy feebar newu ko ngant newu ko jaaxle newu ko xel mu dala nga fa tabaarakallah loolu doon yomb nee na yi jabar ameel na jëkkëram ak bu toll na ko warul rëy xëy woor wooru naafi la te amul ci ndigalu jëkkëram woor bi ñu la may dew soxna si nga mën a ko woor ci lu am lu ndigal mooy farata yàlla ci beneen bés boo bëgg woor war nga ci tàggu sa borom kër su la ko nangulee marxaba su la ko nangulul soo ko defee daa ci am bakkaar ci yàlla du ko nangu ak bi nga xam ni jabar amee na ko jëkkëram nee na bul jël ci kër gi benn alal mbaa matériel mbaa dépense ndaree bu amuloo sa ndigalu jëkkër defe yi taamuloo ci ndigalam daañu ko bindal tiyaabu génne sarax yow nga am ci bàkkaar yow soxna si yow soxna si sa digganteeg sa borom kër it bokk na ci àq yi bul génn ci kër gi te amuloo ndigalam soo génnee te amuloo ndigalam nee na yàllaa ngi lay rëbb ak malaaka yi la mere ba bala ngay dellu gannaaw tuub ci la nga defoon donte ñoo la tooñ xam nga koon di xew si jamono ji ñu naan fay nekk sa kër jëkkër ngeen am coow ngir génn dellu sa kër way jur ñu ne dafa fay sa way jur mer la képp ku am doom bu jigéen boo sëy ndem dóoruñu ko ndem bundu xataaluñu ko ndem mi yee lekk mi yee naan su dawee ñëw ci kër bàyyam nañ ko delluwaat mu ñibbi soo ko fabee benn fan am nga ci bakkaar yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ak bi nga xam ni jabar ameel na ko jëkkëram bañ ko gàddaay bañ ko dëmmooyu topp i ndigalam bañ génn ci kër gi amul ndigalam te it bañ dugal sa kër jëkkër foo xam ni neexul sa jëkkër indi sa xarit nga di góor mbala jigéen mbaa sa àndandoo boo xam ni sa jëkkër àndul ca kookee mbaa defantewul ak moom soo ko dugalee tooñ nga àq bi nga xam ne sa dox na diggante sa borom kër yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam xaqu maraati ala zawji an yutimaha ida taima wa yaksuha ida iktafa wala yadribu lwajha wala yuqaddex wala yahjur illa fi lbeyt nee nay jëkkër ameel na jabaram àqu dundal ko la muy dunde yow la war ak lu soxla sa am am ak sang ko malaanu yére ya muy sol ci lu àndaloog gaañ la bul ko dóor ci kanam jëkkër yi nga xam ni suñu meree yëkkati seen loxo dóor seen jabar màndargal ko xam nañu ni seen ak seen digganteeg seen soxna yàlla ngi jëm ak moom te ak boobu mataluñu ko nee na yow jëkkër bul jël sa kanam ñaawal ko tëj ko ba soxla si du la ñeme jub du la ñeme waxtaanal bul ko gàddaay bul ko dëmmooy yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam xaqul waladi ala waalidihi an yuxsina ismahu wa adabahu wa an yuallimahu alkitaba walsibaha walrimaya wa an laa yunfiqahu illa tayiban wa an yuzawijahu ila abraka wayjur bu ne ak bi dox digganteem ak jabootam doomam mooy soo amee doom nga jox ko tur wu rafet tur woo xam ne su màggee dugg lii lu mu doon ba ñu di koy retaat mu di sama wayjur moo ma tooñ moom la ma jox tur bu ñaawi nii nga jàngal ko xam-xam su ne xam-xam yaatu na jàngal ko bind jàngal ko alquran jàngal ko fiqhu islamique jàngal ko métier jàngal ko liggéey mbir mu am lu mu suturloo jàngal ko féey su ne dëkku ndox dëkku jax ak géej wayu jur war na jàngal doomam féey ndax su adduna jaxasoo woon tabaarakallah xale mën demal boppam jàngal ko rimaaya mën sànni mën dem su amoon xale mbaa jihaat xale bi mën demal boppam di ko dundal ci alal ju lew bul yare sa doom di ko dundal alalu sàcc mbaa alalu jar mbaa loo moomul nañu dundal xale yi ak alal ju lew ñu bàkkeel seeni biir su dee góor mbaa jigéen nga gunge ko su tolloo ci mat sëy nga wutal ko soxna su tolloo ci am borom kër nga ñaanal ko ba dugal ko ci néegu barke yeneen ci bi ne sallallahu alayhi wa sallam xaqu kabiri luxwati ala sagirihim wa xaqi lwaalidi ala waladihi ki nga xam ne mooy taaw ci kër magu kër gi mais kooku it aqam digganteem i rakkam mi ngi mel ne wayjur digganteem ak doomam war na leen uum war na leen njaboote ak yërëm leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xaqul jaari in maridawta wa in maata shiyaata وإن استقرضك أقرضته وإن يعور سترته أقضي خمني نك kenn ku ne ameel na ko digganteem ak dëkkandoo mooy su feebaree nga dem nemmeeku ko ku tax ak nit buntu kër mbaa koñ soo toogee bis ñaari bis ay bis gisuloo ko war nga ñamb sa nga dem seeti ko ba xam lu ko téye doomi bis nga jaale ko nga gungi néewam su la lebee te nga am nga lebal ko su raflee nga suturaal ko su amee bànneex nga ndokkeel ko su amee tiis nga masaw ko soo rek tabax sa néeg mbaa sa kër fas yéene ko xër fiix ni mbaa leer gi na nga dem ba diisoo ak moom nga am autorisation ci moom nga soogaa yéege sa taax bañ ko xër soo tegee sa ñam wu neex ci mënoo ko ci may na nga ko nëbb ba xel gi du egg ci moom mbaa sa njaboot bi ñu dem di ko xëllamtoo sa doomu dëkkaale ñu doy na sëkk ci képp ku bëgg xam yoonu siraatal mustaqim sa àq sa digganteeg yàlla sa digganteeg sa soxna sa digganteeg sa borom kër sa digganteeg sa njaboot sa digganteeg sa dëkkandoo loolu mooy société yàlla tënk ci alquran dafa mu naan waabudu llaha wala tushriku bihi shay'a na ngeen jaamu yàlla moom kottu kenn te bu leen ko bokkaale ak dara ak lenn te ngeen teral seeni wayjur ca na mu rafete wa bisil quba ak seeni mbokk mbokku deret wala yataama ak njirim yi wala masaakiini miskiinu yàlla yi wal jaari dil qurba ak ki nga xamante ni mbokk la dëkkandoo la wal jaari junub ak ki nga xam ni dëkkaale bu la jage la ngeen bokk liggéeyukaay baa ngeen bokk sar ca l'hôpital baa ngeen bokk nekk ca kaso ba baa ngeen bokk yoonu tukki wabna sabil ak gan gu tumuraanke sore i mbokkam sore njabootam wa ma malakat aymanukum ak ñi nga xam ne yéen leen njaboote muy soxna yi muy surga yi inna allaha la yuhibbu man kaana muxtaalan faxuura yàlla bëggul kuy tiitaru yàlla bëggul kuy puukare puukarewu ci kaw jaamam yi yal nañu yàlla xiir ci boppam xiir ñu ci lu mu gërëm ayuha nnaas inna alxuquqa fi baynakum la kathira وما مضى منها كان على الخصوص أما التي على العموم في الحديث الشريف حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه إذا فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه mbokk jullit yi ak yi nga xam ni dox na suñuy diggante ak yu bare la li ma jëkk lim mooy àqu jagle yi yi nga xam ne mooy àqu la ñëpp nag dikk la ci xadis bu tedd yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam bépp jullit ameel na moroomu jullitam juróom ña juróom benn àq mooy lan soo dajee ak sa mbokk jullit ne nan ko nuyu ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu ne su la woowee ci këram mbaa ci xew-xewu teraanga sunna na nga ko wuy ji soo amul ngant su la laajee diisoo ak yow ak laawi biir na nga laawee ak moom biir ca na mu rafete su julit ci soolee ne alhamdulillah na nga ko ne yarhamuka allah su feebaree na nga ko seeti su deelee na nga gunge néewam yi la juróom benn ak kenn ku nekk dox na sa diggante ak sa moroom jullit kon yan nañu yàlla xiir ci boppam xiir ñu ci jëfe alquran ak topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu di sunu njëriñu adduna ak alaxira bi xurmati nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi zi ljalali wal ikram zi tawli wal inam wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna نبينا محمدا رسول الله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام الذين صدقوا مع الله فصدق الله معهم وغفر لهم وآتاهم من لدن أجرا عظيما أما بعد فقد قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبته لا يظلمون عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم mbokk jullit yi gannaaw ba ñu delloo tudd màggu yàlla tabaraka wa taala toroxlu ci kanamam sàbbal ko sant ko julli ci gën ji mindéef sallallahu alayhi wa sallam julli gu dul dogg dogg ëmbaale njabootam gu sell gi saxaaba yu tedd yeeg taabiina yi ba ilaa yawmi diin yan nañ ci yàlla boole ñoo ngi leen di dénk lu ñu yàlla dénk ci alquran nee na tiit leen ragal leen bis boobu la nga xam ne yéen ñëpp daa ngeen teewaat ci kanamu yàlla kenn ku ci ne loo liggéeyoon yàlla fay la te malaka yi duñu tooñ de ñu ngi bind de dara rëccu leen yan nañu yàlla baal te xiir ñu ci lu mu gërëm liñ cee muccal ci bis boobu le mooy topp li yàlla santaane daf ñu sant ñu jub ñu juboo te di jubal daf ñu sant ñu di rafetal daf ñu sant jokk mbokk ne tere nañu def lu bon tere nañu def lu ñaaw tere nañu bew képp ku sàmmoon teeg dénkaane yàlla yii insha allahu taala mu jural a taxe yal nañu yàlla boole xol ba tu yërmande fi diini wa dunia wal axira yal nañu yàlla boole jéggal sunuy bàkkaar yu jëkk ak yu mujj yu feeñeeg yu làq yu ñu teyeeg yu ñu teyul jéggal ko bépp jullit yàlla bu ñu yàlla jàppe ci adduna wala ci alaxira benn bakkaar yàlla bu ko yàlla jàppe benn jullit lu bakkaar rëy rëy ak lu bakkaar ñaaw ñaaw yàlla ñu ko yàlla baal baal ko bépp jullit fi diine wa dunia wal axira sëñ alxaaji maajoor si radiallahu anhu yann yàlla dolli leeram dolli yërmandeem ak ngërëmam yal nañu ko yàlla fayal jazaa al muhsinina njaboot gi nga fi wuutu ci doomu taalibe góor ak jigéen yàlla saxal seen juboo seen dëppoo seen jàppante bu rafet ba ñu téyee ndono ji mu leen bàyyil téye bu jur ngërëmal yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbaaxam ak yërmaleem allahumma jaal jam'ana hada jam'an marhuman وتفرقنا من بعده تفرقا معصما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القران العظيم وثبتني واياكم على الصراط المستقيم واجارني واياكم من عذابه الاليم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين انه هو الغفور الرحيم اذكروا الله يذكركم اعوذ بالله